ka sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara di ko nal day garam di waya ka sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaara di ci jiital cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu it lañ koy ñaanalee mboolem kilifa yi dina yëpp mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sëriñ bi di Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir jàpp na màggaluk poroxaan atum 2020 mu fas doon alxamis dëppook juróomi fan ci weeru mars atum 2020 muy jeudi 5 mars 2020 mu nekk bés bi nga xam ne moom lañ fas yéene jagleel soxna Mariama Bousso Jaaratullaa di magal gi nga xamanteni moy mooy màggaluk poroxaan di ñaan rek ñu fekke ko jamm te tal ko lepp ñu ànd kook Serigne Mountakha mbake bashir diko ñaanalat mu yag fi lol te ànd ak wa rahmatullahi taala wa barakatuh di ko day garam di waay yàgg a sant soxna si ñepp xam ñu naan na jaara